vert la xam nga téléphone yu bees yi gis nga donc ver la ci ginnaaw donc euh, bu reflété si naaj bi donc dafay tàng donc tàngaay boobu après téléphone bi day chauffé après bu chauffé mu daal di fay donc loolu la mais du kii du du du du sabotage du Facebook notre page et bien sécurité d'ailleurs sax am na lu ci neex euh, dinaa leen raconter benn histoire bu ndaw Euh, yéen a ngi fàttaleku la journaliste Baba Aydara Baba dara yéen a ngi fàttaleku euh, vidéo Makhely Johnson vidéo boobu nga xam ne moom la journaliste Angleterre bi def pour leeral ne Baba ay dara moo saboté woon suñu élection yi Sénégal Baba dara dafa jënd droit d'auteur vidéo boobu ba pare di ko signaler ci page yi foo teg vidéo bi rek ndeysaan mu signalé ko dafa jommi xam nga boo nekkee duulkat ak fenkat ak yàqkatab réew masiba naaru laay buy ñëw sa kaw doo xam ni muy ñëwee baaba ay dara comme moom moo sàcc élection moom mooy journaliste yi nga xam ne ñoom ñoo yàqoon élection senegal yi donc vidéo bi foo ko dugal dañ koy signaler lii ak preuve la ah, maa ngi ko yor fii ci sama téléphone je suis allé le poursuivre partout dans YouTube dafa signaler vidéo bi signaler suñu page Facebook bi cent mille fois ndeysaan lii lépp par lan parce que la lâcheté donc yéen ñu bëri euh, ci réseaux sociaux yi boo leen amee problème c'est parce que da ngeen waxoon ci affaire ay dara bi il a tout son temps à signaler les vidéos des gens ay dara le même journaliste clandestin Baba dara journaliste clandestin bi nga xam ne moom moo demoon na euh, changer turu jàmbur ak fraude Dans un monde normal, il devait être en prison. Voilà. Voilà, donc loolu la. Donc léegi ñu continuer waxtaan bi nga xam ne moom laa tàmbali woon léegi. Voilà. Donc dañu ñëw ci benn waxtaan boo xam ne euh, je pense que sénégalais yi dañ ci war a yeewu. Voilà, donc on est déjà euh, j'ai remarqué ça me fait avec iPhone 12. Voilà, c'est ça. Voilà, moom la koi loolu la day day day chauffer quoi dafay chauffer bu nekkee ci naaj bi dafay chauffer voilà donc Baba Aïdara du ma sori ci moom naa ko teg na un débat que les Sénégalais euh, vraiment euh, en bénéficier am na débat boo xam ne Sénégalais yi dañ ci war a bénéficier wu muy benn débat bu extraordinaire boo xam ne gars yi yëpp dañ koy yëkkati fan yi Euh, ils se disent que Macky Sall dafa bëgg a dugal ci suñu biir bopp yi nekk sénégalais dootul génn xeex maanaam defe na ne noot na sénégalais yi euh, indi na sénégalais yi ci benn débat boo xam ne sénégalais yi dootuñu ñemeeti génn pour xeex mais je pense que sénégalais yi nañu dugal ci seen biir bopp yi ne euh, y a un débat qui est national Et un débat qui est vraiment euh, naa ne euh, débat boo xam ne doomu aadama yi dañ ko jël ñu ber ko mooy tey bis bu ne dañ ñu bëgg a gëmloo ne Macky Sall il a contrôlé les Sénégalais mooy maanaam tey Macky Sall contrôlé na doomu Sénégalais yi euh, contrôlé manière boo xam ne vraiment doomu Sénégalais yi du ñu génnati wax te doomu Sénégalais yi du ñu xeexati. maanaam tey lépp loo xam ne daf ñu koy teg rek dañ koy nangu maanaam nooteel bu Macky Sall indi ci kaw doomu sénégalais rek dañ koy nangu euh, te le grand problème à sa grande surprise il se trompe parce que man dafa am lu ma gëm te xam naa ne doomu sénégalais yu bari loolu la ñu gëm peut-être am na sénégalais yoo xam ne problème mu pêcheur intéressé wu leen peut-être am na sénégalais yoo xam ne. Euh, problème mu euh, Macky Sall sàcc mille milliards intéressé wu leen peut-être am na aussi ay doomu sénégalais yoo xam ne Idrissa Seck transhumé dem ci Macky Sall ak naan fonde la ñu yemale am na aussi ñoo xam ne tey peut-être euh, yu Ndour dem di ko woyal ci ay kii maanaam ci ay podium intéressé wu mais y a ce débat du Sénégal boo xam ne sénégalais yaa ngi souffrir les sénégalais souffrent te ñëpp a ngi toog di xaar parce que dafa am loo xam ne daf ñu metti ci élection yi passé gis nañu ne li ñëpp bokk benn doomu aadama jël na ko aaki ah, moo ko daw ak moom il a menti toute la population sénégalaise il nous a fait du mal ñun ñëpp suñu xol yaa ngi metti ba jëm si yàlla tey wallahi man sama genre gi mënumaa baal Macky sàll sama xol baa ngi jeex ba léegi Euh, le problème qui se pose mooy sénégalais yi y un problème euh, problème bi xew mooy ya un problème de combat commun maanaam da ngay gis borom plastique yi di xeex fale borom gaal yi di xeex fale borom marché yi di xeex fale les jeunes sénégalais qui vont faire les voyages clandestins ñoom ñu ngi xeex fale patriotes yaa ngi xeex fale donc combat bi dajalowul mais je veux que Macky Sall sache que yàlla dina ko puus ñun ñu ngi ñaan yàlla li mu bëggul def sax yàlla na ko def yàlla na Macky Sall déposé candidat troisième mandat man dama ko koy ñaanal bis bu ne yàlla na déposé candidat troisième mandat parce que man sénégalais yi bu ñu jekkuwul Macky Sall du am lu ma neex te ragal naa ne Macky Sall guddi yi ñu toll bu intelligent yee ndeysaan def ndànk génn ndànk te demul troisième mandaa le problème qui va nous dina daw dem toogi France gars yi jël ko ci yeneen position yeneen post foofu ci France ndeysaan ba ñun li ñu bëggoon dal ci kawam du ñu dal ci kawam maanaam on on n'aura plus l'occasion euh, xam nga mooy ngay ñaan yàlla toujours yàlla na ma nit ki tooñ pour ma nangam taan ndeyam nit ki du la tooñ donc loolu laay bañ maki Sall def li ñuy ñaan yàlla di ko ñaan toujours mooy yàlla na Macky Sall déposer troisième mandat man loolu laay ñaan saa bu ma jullee di di yeewu nag dama koy ñaan yàlla parce que Macky Sall dara gënul neex ñu jàkkaarloo sénégalais yi jàkkaarloo ak moom woon ko ne ñun ñoo ko fi tegoon woon ko ne ñun ñoo moom senegal baayam amul benn sàkket bu mu indi Sénégal ñun awma benn banneex buy gën a neex ma jàkkaarloo ak Macky Sall jàkkaarloo ak ñi nga xam ne les truands les manteur les délinquants qui sont derrière lui xam nga boo xoolee ku mel ni maal Malick Gakou mi ngi dem ah Malick Gakou entre de partir aussi amul benn partisan bu ko topp mi ngi mel ni sa Seck xam nga sa Seck dem na ci Macky Sall xam nga Idrissa Seck ñaata partisan ñoo ko topp ci Macky pour cent parce que c'est les un pour cent délinquants ñi nga xam ne mi ngi dundal seen le bétail électoral ñi nga xam ne mooy dundal seen waa kër ñi nga xam ne seen dépense ci moom lañ ko yaakaar ñi nga xam ne seen seen dund àdduna ci moom lañ ko yaakaar ñi nga xam ne am na ci ñoo xam ne moom moo leen wutal visa ñu dem Europe ñooñu donc le petit bétail électoral la moo topp Idrissa Seck fi mu jëm mais en réalité Idrissa Seck ñi ko topp boo ko compté ci électorat am yëpp nga dajale ko matul un pour cent parce que déjà dans l' électorat sénégalaise boo xoolee ñi nga xam ne ñoom ñoo votel Idrissa Seck boo génnee vingt six partis politiques yi nga xam ne ñoom la defal euh, euh, coalition Idrissa Seck amul cinquante mille personnes au Sénégal il n'a pas cinquante mille voix mais xam nga y a vingt six partis politiques yoo xam ne ñoom ñoo dajaloo ku nekk indi li nga yor donc voilà il a réussi à avoir euh, un pourcentage pas vingt six pour cent quand parce que ma wax leen lu leer a leer a leer léegi élection Sénégal yi jàll Macky Sall moo jiitu président Sonko moo gagné élection yi président Ousmane Sonko moo gagné élection yi jàll loolu wóor na ma comme ni ma sama dee wóoree parce que je vous dis que àdduna sondage la te sondage ñun ñëpp xam nañu int eh, li nekk ci àdduna bi tey euh, gis nga diaspora bépp réew Afrique laa la wax nag bépp réew bu nekk ci Afrique jaspora bi moom mooy boppu wagon bi boo demee bopp wagon boppu boppu train toujours jaspora la la diaspora décide mi ngi mel ni man tey lépp luy xew sama kër Afrique man naa koy décider lépp luy xew ci suñu famille ñun diaspora bi moo koy décider lu diaspora bi décider moom la décidu famille bi di dox donc si vous êtes intelligent ngeen di def seen calcul bu normal euh, tey boo xoolee diaspora sénégalaise bi yëpp tey on naa choisi un seul président et c'était Ousmane Sonko et it wasn't close maanaam li américain dina jegewul les résultats n'étaient même pas proches boo leen xoolee li xew ci élection présidentielle yi jàll résultat yi jegewul it wasn't even close maanaam tey nga ñëw ci ci ci ci diaspora bi Ousmane Sonko avait ravagé la diaspora à un à à un rythme à un bi kenn mënu koo kenn mënu kenn mënu la ne nii la parce que man ci diaspora bi laa nekkoon et j'ai voté ici te man naa leen wax ne man centre de vote bi ma voté moi j'ai fait mon sondage ma taxaw ci biti bi juróomi nit yu ñëw boo laajee ñeenti yëpp wala ñetti yi dañ lay ne Ousmane Sonko lay voté tous les quatre dans cinq personnes yu ñëw ah diw fo ah, ah, ah, gars yi du ñu hésité il n'hésite pas boo la naa sa diw kaa ñu ne non sa waay bàyyil wax ji man Sonko lay dem voté man aw ma lu ma wax Sénégal donc quand on est dans un Sénégal comme sa on connaît la réalité de notre pays. yéen ñi xamul lii tax taatu buqat bi di baax lii tax taatu Macky Sall bi di tëgg tama yéen xamu leen ko mais moom xam na ko li tax Macky sàll bëgg a dajale Sénégal yëpp contre une seule personne mais seetaan leen boo leen xoolee li xew Sénégal temps yi daf leen di jaaxal Macky Sall est en train de ravager tous les Sénégalais il est en train d'acheter tous les consciences des politiciens pour lan parce que benn doomu aadama bi moo ko jaaxal. te li ma leen di wax rek les jeunes patriotes continuez à avoir espoir continuez leen avoir espoir gis nga gis nga yàlla doomu aadama mënuloo lu dul yaakaar yàlla mooy dogal munuloo lu dul yaakaar yàlla rek mooy dogal gis nga koo tanewul du la saaga koo tanewul du la saaga koo rawul koo demul bàyyi ko du la saaga mais va voir va voir dans l'école dem dem leen ngeen xool histoire u àddina yow tu es milliardaire tu conduis les belles voitures tu as les belles femmes tu as les est-ce que yow di nga jël temps di saaga ki nga xam ne tekkiwul dara ci àddinaam toujours ñoom ñoo lay xool ñoom ñooy xamee li nga wax tey boo xoolee ndeysaan euh, je ne sais pas si je peux le prendre pour un exemple parfait mais boo xoolee notre petit frère moo Gates Sénégal yëpp ngay dégg ñuy ne moo géej mais dégguloo moo géej muy concentré wu ci benn sénégalais est-ce que mas ngaa dégg rek moo géej jël euh, live taal di saaga Ablaye Ndiaye wala di saaga ma koddu di saaga ma penda di saaga ma demba di saaga ma joojo déedéet nul ne le fait pas non moom da nga koy gis ndeysaan moom mi ngi ci trajectoire mi ngi jël ay avion privé mi ngi jël ay hôtelam xaalisam la je ne suis pas d' accord avec lui à cent pour cent c' est sama rakk la bu ma ko woowoon téléphone léegi ndeysaan mu jël ma lu ma ko wax mu déglu c' est un c' est it's a nit la ku baax a baax a baax it's a kid with a wonderful tey Sénégal yëpp foo tourné moo géej moo géej moo géej nangam il n' est nangam il n' est il est il a volé ilaa nangam ilaa nangam mais musuloo ko dégg musuloo ko dégg musuloo ko dégg non mu ne euh, sama sœur sama sama sama jarbaat sama jarbaat tam yenn saay xam ngeen moom bàyyi leen ko foofu yenn saay yaram bi day tàng sama jarbaat roqee yenn saay benn jour nag dinaa ko fi indi ma ruube ko manit yenn saay daf may ruube day tàngal sama yaram mais loolu c'est xam nga dangay comprendre fi may waxee ngeen comprendre exactement exemple bi may joxe xam nga mënu maa joxe exemple ci ban nit laa mën a joxe exemple tey par exemple je donne l'exemple sur qui parce que c'est le seul sénégalais que tu que je connais boo xam ne man dama ko xam personnellement euh, li mu yor ak fu mu ko mën a jëlee ak fu mu ko mën a amee ak nu mu mën a tollu bosam la moom moo ko moom donc ñu nangul ko ko ak ñu bañ ko ko nangul Euh, amul kenn koo xam ne ci ñun mën naa ñëw ne yow yaa cotisé woon jox ko sa lii wala dafa tëgg soirée nga fay ko li xam nga mën naa jël exemple Wally Seck mais Wally Seck suñu musicien la moom day tëgg soirée ñun ñoo koy fay ñun ñooy jënd ay billets ñun ñooy dem baatreel ko xam nga mun naa jël exemple tey ci kii ci Amadou Sall baayam mooy président de la République il a volé tout l'argent du Sénégal alalu Sénégal yëpp la sàcc baay bi jël ko di ko séddoo ak ay nitam mën nañoo jël exemple kan fay euh, euh, euh, Faye Mansour wala Alioune Sall xam nga ñooñu tey nit ñi ñoom lañuy ñuy saaga parce que ñoom ñoo yor milliards yi mais milliards yi nuñ ko amee ñoom se différent ils ont volé nos milliards dañu sàcc suñu ay milliards yu bari tey mën nañoo jël exemple ci kan Youssou Ndour balaa maa dee nit ñi ñu la non non non Youssou Ndour il est accompli nangam nangam comment qu'il est accompli c'est les Sénégalais qui ont acheté de sa de sénégalais yi ñoo ko may kër sénégalais yi ñoo ko may nangam mais boo déggee ma ne exemple Mo Gates moo Gates c'est un jeune sénégalais kii vit aux États-Unis que je connais moi personnellement dama ko xam personnellement on n'a pas euh, la même manière de faire mais c'est mon petit frère et il est extraordinaire pourtant de li ngeen gis muy taal ni yëpp alalam la moo ko moom li muy taal nii yëpp je pas d'accord mais alalam la moo ko moom tëggul soirée amul sénégalais bu cotisé doorul benn alalu sénégalais il n'a pas triché avec le gouvernement du Sénégal il n'a volé aucun franc avec les sénégalais te tey moom moo nekk kaddu télé yëpp ku maamam bañam tu connais combien d'appels je reçois par jour euh, Ousmane dañu bëgg nga boole ñu ak moo gate on na ses complications on a ses complications Ousmane dañu bëgg nga boole ñu ak moo gate on a besoin de ceci on a besoin de cela tu connais combien de fois wallahi bari na munuma toog munuma laa limal munuma laa limal xayma bi munuma laa toog ma ne la c'est ce nombre de fois ah mu ne moo gay fii la critiquer Sadio Mané ñu arrêté dina ko yàq lu mel ni xeme roxe roxe yow daal li may def yow xaaral yow xam naa li may def yow li may def mooy damay damay ubbi ligne bi nga waxtaan ak moo géey pour nga mën a comprendre exactement la mentalité d'un jeune Séné d'un jeune sénégalais yéen a morom sa morom la ah seeni morom la c'est une personne extraordinaire man maa lay wax lii wallahi billahi boo xamoon xolu jeune boobu dangay ngay waaru ci yàlla il a un un cœur d'or maa la wax lii c'est que nag xam nga boo nekkee xale xale xale xale ci boppam déjà rek challenge la si tu es jeune jeune rek challenge la man bu ma gënaloon tey wallahi billahi tallahi moo géej day jël cent day jël te dinaa ko topp man xam nga ma man man man du ma ko may dara sama rakk la dinaa ko topp dinaa ko bës bu ma gënaloon tey day jox jeune patriote yi deux milliards de ces francs CFA day jël ñaari milliards mu jox ko patriote yi dooleel leen pour ñu mën a xeex te dinaa ko topp xam ngeen ma man dinaa ko topp duma ci tay dinaa cotiser mais man looloo ma gënal mooy tey mu jël ñaari milliards mu ne où il a pris son argent Zal Taal ah Zal Taal où il a pris son argent Zal Taal nag yaa ngi bëgg waxtaan waxtaan bu neex mais day liggéey c'est un homme d'affaires il fait ses affaires il a pris son argent dans ses affaires naa la leeral benn affaire rek ngeen xam ko ngeen xam ko naa la naa leeral benn affaire rek ngeen comprendre ko tey mu leer nekk mu leer toujours Euh, je vais vous dire une petite gis nga man dëkk oncle Sam laa dëkk man Amérique laa dëkk gis nga Amérique moo géej daf leen mag yen ñi koy seetaan ñu bari daf leen ëpp xel gis nga euh, moo géej gis nga bu nekkoon ci lu illégal bu doon ci lu illégal lay dox maanaam ci tappale walla fen wala sàcc wala luubal wala jël alal boo xam ne moomu ko je vous garantis je vous garantis je vous garantis que wallahi billahi tallahi lazim wallahi billahi laa leen waatal de balaa deux semaines trois semaines moo gate FBI dina ubbi li tudd investigation ci moom te balaa yàgg ñu daan ko teg ko ay daan lépp loo xam ne def na ko ñu dugal ko ci biir kaso bi noonu la Amérique di doxee mais boo gisee moo gate l'intelligent jeune que je connais mu ñemee jël ay avion privé di bëgg dem fu ne di dem fu ne ci àdduna bi di dox ay soxlaam di jël alal ay milliards yi milliards yi milliards di ko maye di tas ay milliards vous saviez que ce jeune naa leen wax rek ci année bii rek yéen ñi topp pour euh, jaar-jaaram il a dépensé plus d'un milliard de francs CFA dans cette année année bii ma xam deux mille du ma la ne trois quatre cinq lu leer laa leen di wax de il a dépensé plus d'un milliard de francs CFA boo xam ne man gis naa ko je ne dis pas que je suis d'accord xam nga doomu aadama c'est important pour ngeen xam lii loo moomul mënoo koo contrôler moi je suis le grand frère mais je ne suis pas son père ni sa mère te wax dëgg yàlla euh, Amérique même si c'était si j'étais son père ou sa mère il a euh, euh il est majeur et il est responsable de ses actions donc voilà donc ñu bari ci yéen euh, man man man li ngeen gëm ak li ma gëm lu benn man dama nekk ci dëkk onkul Sam ma comprendre ne dafa am fii ñun suñu dëkk bi lu ñu tuddee American dream maanaam le rêve américain du ñëpp a koy dund nag maanaam oto yu rafet yi bato yu rafet yi kër yu rafet yi restaurant yu rafet yi la belle vie de American dream am na ci ñoo xam ne yàlla wërsëgal na leen ko am na ci ñoo xam ne aussi yàlla wërsëgule leen ko mais nee naa la ñu ne la wax mbaaxu jàmbur yàqul dara ci sa bos et une autre gis nga ki ñaan xam nga man li may wax nit ñi la toujours te toujours bu may wax loolu euh, américains yi dañ may laaj loolu ñu ne ma euh, c'est quoi ce problème euh, amin suñu mbokk yi dañ may ne li ñu lu tax ngeen iñaane maki Sall Macky Sall iñaane wuñu ko xam nga Macky Sall c'est un Richard voleur xam nga tey nit mën naa nekk milliardaire mais milliardaire boo xam ne mënoo wane sa kanam milliardaire mënul wax fi nga xam ne foofu la jëlee ay milliards am Macky Sall est un milliardaire aujourd'hui koo xam ne kenn du ko bind ci livre euh, bu ñu doon dem tey dans les hommes les plus riches au monde Forbes euh, euh, ak yooyu foofu kenn du fa bind Macky Sall parce que tu connais président présidents et ces dirigeants des pays qui sont devenus riches sur le dos des, des, des, des, de leur peuple, ils sont considérés comme des voleurs à travers le monde. Ken du len bind fi nga xam xamné fofu lañuy bind les hommes les plus riches au monde. Non, euh, je n'ai pas parlé du Pastef Souleymane Jules Kanté néna je pense pas que Pastef est une partie politique man waxuma ci Pastef. Ba légui ken dégguma may tuddu Pastef. Dama né les mouvements citoyens, les patriotes, les mouvements citoyens pour aller combattre Macky Sall. Moi, jeune par le pas de Pastef. man tudduma fi Pastef tudduma fi dara loo xam ne jëm na ci Pastef defe naa doomu aadama yi jël leen seen xel yi ngeen ubbiwaat ko Tunkara il est très bu may wax I speak with caution kenn dégguma fi ma ne pour ma wax moo géej mu dem financer Ousmane Sonko jamais je ne parle pas des choses comme ça Ousmane Sonko dafa am nu mu lalee parti politique am dafa bëgg doomu aadama yi cotiser ku nekk cotiser de sa manière pour ñu financer Pastef je ne parle pas de Pastef na leer Pastef du doxee noonu Pastef bëggul kenn jóge fa ñëw indi ay milliards tegal ko ko sur la table Pastef ne fonctionne pas comme ça donc man waxuma waxu Pastef nañu jël Pastef ñu teg ko fële lii moo yàq suñu réew léegi boo bëggee nit sax mënatoo wax ci moom keroog dama toog même dans mon dans l' anniversaire de ma ma bind benn publication ci page nit ñëw ne ma voilà est ce que page bi voilà nangam nangam ndeke comme c' est un jeune de du Pastef mu ne ma pourquoi man pa sama jabar sama famille moo ma gënal Pastef ma wax leen loolu ngeen comprendre loolu dugal leen ko seen cabeça yi ok j'ai voté Ousmane Sonko moi à ma personne man Ousmane Sonko laa voté moi je pas un membre de Pastef donc loolu dafay leer comme je vous dis Pastef moo ma soxla man responsable yi mooy lan ñu wax ci li nga xam ne day amal Sénégal njariñ c'est ça la réalité je parle du Sénégal te Sénégal moom mooy déjà euh, waxtaan général bi c'est le Sénégal léegi Pastef benn parti la ci boo xam ne peut-être buñ ko joxee Sénégal un jour incha allahu rabbi mu def ci liggéey bu extraordinaire loolu laa wax. te nee naa leen élection yi jàll Ousmane Sonko moo ko gagné man ak sama sondage ak lépp loo xam ne jël naa ko sur place ma teg je peux vous dire que c'est le président Ousmane Sonko qui a gagné. moi je n'ai pas besoin de Pastef Cheikh Ahmadou Kane Diop non man soxlawuma Pastef je vais vous dire ça c'est le Pastef qui a besoin de mois man amul dara loo xam ne soxla naa ko Pastef voilà soo man Pastef moom jàppale leen rek incha allahu rabbi ba yàlla jox Ousmane Sonko ndam mi jox ko drapo bi pour mu continuer gérer ñu suñu dëkk bu extraordinaire boobu defar ko ba mu baax wallahi billahi tallahi bu ma defalee loolu my dream came true mais aw ma dara loo xam ne dama koy lijjanti ci Pastef toppatoo ma fa dara Pastef am na assez de membres am na assez de personnes euh, ndeysaan yu baax ay ñoom Bala Moussa Fofana ay ñoom Bulli Galissa on connaît y des personnes y a des personnes y des personnes am xam nañu ay nit yu extraordinaire yoo xam ne tey ndeysaan euh, mën nañu ñëw liggéeyal Pastef defar ko ba mu jaar yoon incha allahu rabbi sénégalais yi man cee njariñu léegi damay jël. déjà benn auditeur suñu benn frère euh, mu ñu waxtaan tuuti ci waxtaanu Sénégal bi nga xam ne moom la ñu doon waxtaan après ñu continuer le débat asalaamaaleykum frère maa ngi lay ziar. delloo ziar Ousmane Tounkara si loo nekk yaa ngi si jàmm bu baax j'espère. alhamdulilah. di nuyuwaale auditoire bi yëpp ak ñi nga xamante ni ñoo nekk di déglu live yi. Mm-hmm. <clears throat> waaw tey dama ñëw dugg tuuti rek d'abord maa ngi damay damay kii damay def remarque par rapport ak euh, intervente boobu di ñëw ci sa live parfois. Ah, ah. da nga koy